asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan ci page bi te abonné goo ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bés cloche bi ndax li ñu dugal rek nga bokk te ñi ko njëkk a gis wéy leen di lay kii di commenter te di partager

donc laataa may ñëw nag di leen jox sama onze dañuy dem ci page publicitaire bi te ñëwaat. da nga am jafe-jafe ci sa wàllu dund jàngoro rab ak cat ba ci sax tëju ci sa wàllu wërsëg lii yëpp mën na la gàllankoor ba tax loo yaakaar rek mu tas kon nag bul xaddi benn yoon ndax fa xam-xam ne woon ba tey jugu fa dawal seeti sëriñ Mohamed Jaxate di boroom xam-xam bu mag ci wàllu lasraar xaar bu leer wax la sa passé ak sa tolluwaay ba nga teg sa bët loolu moom ñëpp mànkoo nañ ñi amu ci morom ñi am jafe-jafe néew kattan ci wàllu sëy ak ñi tukki bitim réew te ay këyit leen lool daw leen seeti sëriñ Mohamed Jaxate seen ajo yëpp faju ngir jokkoo ak moom wootal ci numéro téléphone bi 77 334 83 80. ak Serigne Mohamed Diakhaté aajo yëpp ay faju mbokk yi gannaaw bi ñu ñëwaatee donc dañuy eh, dem directement wax leen jox leen suñu onze type donc Sénégal contre Qatar fekkee ci gaa camp yi damay teg Edouard Mendy comme d'habitude donc mom mom lay tek vraiment jox ko entièrement confiance parce que jamono Edouard mi ngi dund moment yu métti yu difficile mais teewul ba léegi euh, man je pense que dafa war am confiance sénégalais yi sénégalais yëpp dañ ko war jox confiance parce que fi instant bi fi tournoi bi toll mënoo fi def ay changement de gardien même si que sax c'est très difficile mais Edouard man jàpp naa que ne mën nañu ci à chaque moment fekkee ci défense bi damay am duo du Koulibaly ak Abdou Diallo Abdou Diallo il faut mu ñëw ci défense bi donc euh, peut-être que euh, ah, ñëwaat na donc match bee pas ba jënoon ci blessure waaye ñëwaat na mi commencé entraîner waat donc Abdou Diallo ak Kalidou Koulibaly défense boobu man moom laa gis fekkee ci latéral euh, droite bi Youssouf Sabali gauche bi ñu am fa Ismaïla Jacobs ndaxte ki nga xamante ne mooy Fodé Ballo-Touré du disponible ci match bi ñu jëm donc kon Ismaïla Jacobs moom lay teg li nga xamante ne mooy latéral gauche fekkee ci milieu bi damay am Idrissa Gana Gueye ak Nampalys Mendy donc am ñaari milieu défensif euh, di len fatale rek man 4 2 3 1 light teg quoi euh motax ma am ñaari milieu défensif muy Gana avec ak ki nga xamantene moy mooy Nampalys Mendy fekkee comme meneur de jeu ma am Iliman comme numéro 10 euh, donc euh, sénégalais yépp réclamé nañ ko mais surtout man mi nga xamantene depuis le début may wax nañ ko wara a depuis suñ premier match avant sax loolu doon na ci wax donc fekkee ci attaque bi damay am trio Krépin Diatta Boulaye Dia ak Ismaïla Sarr donc loolu moo nekk sama classement en onze type euh, euh, donc loolu laa joxe woon tey ji yéen nag ci commentaire yi ngeen wax ñu seen onze type tout ça kon laa leen di loon jaa ngeen jëf